daje tey ñu nag taskatu xibaar yi ñu leen di sant ci seen teewaay ngir euh, li nga xam ne lañu bëgg bokk ak ñoom te mu jëm ci wàllu secteur économie sociale et solidaire xam nga secteur bi bi président Macky Sall ne def naa ko initiative nationale namm ci ne kenn ku nekk kuy yëngatu ci réew mi ak anam boo mënti nekk ndax mën nga nekk entreprise bu mag mën nga nekk aussi ci ak coopérative wala mutuelle waaye mën nga nekk koo xam ne da ngay ambulant wala da taaba taaba mu ne ñooñu ñëpp bëgg naa ñu indil leen anam boo xam ne buñ ci nekkee kenn ku ne dana gën a mën a defar li nga ne mu tënk nag vision wu économie sociale et solidaire boobu ci loi d'orientation bu relative à l'économie sociale et solidaire ba pare xaatim décret d'application bi mu desoon nag ñun ñi nga xam ne loolu la ñu dénk ñu seet ñu ñuy màndargalee li ci biir loi parce que boo xoolee loi bi mi ngi ñëw ci euh, acteur bi nga xam ne mooy nekk di yëngatu nan la ko yoon war a jàppee

ñaare mu ne ñooñu aussi nañu xool population ya fa ne li ñu gën a soxla ci entreprise yooyu ñooñu mën leen ko defal loolu yépp mu tënk ko ci loi bi am anam yoo xam ne noonu lañ ko war a doxalee loolu aussi ñun biñ ñu ko defee saytu ko ba wut anam dañu wut li ñuy wax benn plateforme numérique maanaam day ñu roog benn portail web bu ñuy wax seen label ESS ci laa bokk donc seen label mooy Sénégal bi label bi mooy agrément bi nga xam ne képp ku ne acteur de l'économie sociale et solidaire na mën na nekk ci jëf mais boo bëggee léegi ñu nangul la ko da ngay jaar ci li yoon wax yépp te boo ci jaaree ba pare yoon na la dinaa indi dimbal yu dooleeku si fi jot am ba pare donc ci laa bokk mooy ñëpp la yéen ñi tey ni ngeen nekkee taskatu xibaar ci ngeen parce que bu leen neexee ngeen organiser wu daal di dem ci biir plateforme bindu comme ñëpp li tax plateforme bi am solo mooy duñ ci def xàjj ak duñ ci seet Masamba wala Mbandemba ku nekk da ngay ñëw dugg boo duggee bindu aussi bu la neexee nga def weer bu la neexee nga def ñaari weer bu la neexee nga def ñetti weer ndax saa soo bindoo fii ak liñ la laaj indiwoo ko doo mën a jàll ci beneen étape bi donc mën nga dem lijjanti liñ la laaj ba mu sotti nga ñëw daal di dugalaat daal di jàll ci beneen étape boo demee ba matal lépp nag ministère bi day daal di rek moom saa bu waree jëf wala mu seet nit ki ne ci dara nan laa ko war a gën a mën a dimbale mu daal di dugg ci portaay bi ñun dinañ toll fii ci ministère bi xam ci 14 régions yëpp liggéey ba fa ne lan la gouverneur ak préfet ak sous yi nga xam ne ñoo ñu war a dimbale ci liggéey bi aussi ñu xam fan lañ ci toll su ko defee ñu mën a tënk lépp aussi jébbal ko président Macky Sall mu mën a joxe dogal yi kon plateforme bi dañu jàpp ne lu am solo la mais donte am na solo ak dayo pour ñu gën a màndargal loolu foog nit ñi xam ko te pour nit ñi xam ko nag foog ñu xam texte yi foog ñu xam plateforme bi nan la mel foog ñu xam li ci biir moo tax ñu taseeg yéen tey dinañ taseeg yeneen koor yoo xam ne kenn ku ne danañ la wan lii buñ la ko wanee ba pare nag ñu door a dem ci euh, lancement bi nga xam ne mooy doon ay campagne d'activation yoo xam ne dinañ ko gën a fësal siiwal ko ba nga xam ne képp ku war a mën a jote ci mbir mi di nga ci jote